coowal négligence manam ñak taxawu bi war bu yenn ci seen moroomi jigen yu tollu ci wasin ñom soxna yi dafa yobbu seen fit tital nañu mom tital nañu torop parce que tay ji bo demee da ngay ragal sax léegi am dom yow mi bo demee ba waru jur nga dem baragal am dom lol tital nañu ankay dañuy tit ndax fim nek ni nii ku rek so naroon eum sax doto eumati da nga nan jurum dom bi dal baxna bo ci amé ñaar baxna bo amé da nga nan doyna seuk parce que bo xalaté niñ lay def yow da ngay doyal njurum doom. amoon na avant mais nit ñi léegi lañ ci door a rendre compte ak felo bi fi xewoon temps yee ne mais bëri woon na sérieusement amoon na ci hôpitaux yi mais euh, ku ku nekk ak sa jikko ku nekk ni nga mel sa kër boo demee loolu ngay yóbbaale def naa nu mu amee ñu ñi nga xamante ni euh, def ñu seen liggéey normalement noonu la amee ñi nga xamante ni ñu ngi def seen liggéey normalement. daa gën a feeñ mais yàgg na ndax. Euh, da ngay dem hôpital ñu lay négliger bu dee affaire accouchement da ngay dugg sald d'accouchement nu leen neex lañ lay traité te du noonu parce que nit ki ñëw ànd ak métitam da nga ko war a accompagner téye ko bu baax ba nga xam ni moom mën nga ko def noo xamante ni xelam métit bi dina wàññeeku daal. ñimeetuñu sama mag bi hôpital bii tamit noonu lañ ko defoon mënoo am doom mu nekk fa doom ji loru ci biir bi. mu dem hôpital ñu ne ko doom ji dafa loolu si biir am na hôpital ba ñaata fan munu fexe ba accoucher doom bi ñu sonn ci ba bëgga a dee moom it dafa ragal mi ngi nii yem si ñaari doom xam nga loolu tamit dafa metti man mii sax ba may accoucher sama taal problème boobu daloon na ma ci parce que déjà man ñi ma waroon yóbbu bolok ñu nekk foofu di lijjanti affaire natt ba mujjee maa yóbbu bolok ba major bi moo mujjee ñëw sax nekk dafa war a dem bolok déjà te major bu ñëwul instant yi mu naan ne heure bii duma fi nekk. parce que négligence loolu moom négligence bu ëpp la dafa bari moom li muy dal jigéen ñi bëri na trop may am sama deuxième kii accouchement ñu dem jox ma garabu fi fibrome te tey jii amaana bu ci yàlla jàpp moom du ma am accouchement. da ngay ragal sax nekk en état déjà boo nekkul en ñi nga xam te ñu ngi en état tamit nekkuñu ci jàmm ba waxtaan ak ñoom dañu ne man damay ragal sax dem hôpital bu amee lu may métti sax du may tiit du ma xam na laa def xam nga loolu tamit c'est très inquiétant foo xamante ne boo fa demee fa nga fa la la woon rassuré nga fay ragal a dem. xam nga loolu tamit beneen kaar la mais nag euh, ku nekk tamit ak sa mentalité ba tax na daal gëm naa ne daal ak li fi jot xew temps yi nii même ñi nga xamante ne yoroon nañ yenn jikkoy négatif yi sax ñi ngi jéem a positiviser pour euh, macha allah seen bi ñu ñëwee ñu mun leen accueillir normalement. causes yi maanaam li waral yooyee ñaawteef ñoom soxna yi jàpp ni ñàkk tàggatu bi war bu yenn si yooyee waa kër docteur moo waral li ni mel. seen métier bi jàng bi dafa dafa dafa maanaam man loolu laa yaakaar ni moo ko sabablu ndax defe naa ni sa métier boo ko jàngee ba nga xam li nga jàng bu baax am na nooy accueillir sa malaat am na nooy ñëwee téye sa malaat. léegi ñi nga xam ne dañuy ubbi tey école kii da ngay nekk fa rek benn at rek amagoo sax diplôme daal di génn ñu aidé rek nga daal di kii li ñuy wax ne balaaroo rek nga commencé ñëw nekk docteur bakkan doom aadama du ay fo yàlla mi nga xam ne moo ko moom sax foyewu ko kon yow mi nga xamante jël nga risque ne da ngay doon. nekk kuy faj faj ak loor ba kii àndul mais soo xoolee tey suñu hôpital yi ñooñu gën a feebar. ñoom dañoo war a bàyyi xel na ay bakkan la ñu war a sauver ay doomu aadama lañ te dañoo waat métier boo ci nekkee boo waatee pa da ngaa war a sàmmanteek sa kàddu. loo mënul bàyyil bu la leeree na tey jii boo duggee si médecine doo assumer say responsable bu si dugg moo gën waaye dugg si nga xamante ne yow faj nit nit ku wér nit ku dee nga yemale kon koy yow fajatoo. nañ xoolaat seen liggéey te xool yi ñuy dugal ci hôpital surtout ñuy dugal ci nañ ko xool parce que da ngay gis benn nu mu stagiaire nekk ci hôpital bi ah nekk naan day accoucher accoucher nit loolu fu mu ko teg teg ko fenn. li ñu naan benn pomme de terre bu nëb euh, mun na yàq saako bi yëpp noonu la demee xam nga liggéey boo ko war a def teg ko ci yoon tegoo ko ci yoon rek da nga yàqal ñëpp amaana ñëpp meluñu noonu mais loolu am la mais nag dañ leen di ñaax rek ñu dem jàngaat euh, déontologie ak éthique. ñu gën a xam seen liggéey exactement parce que lu jëm ci wàllu santé dafa sensible il faut mu jaar yoon bu jaar yoon dafay xaw a doy waar. li ni mel daanaka jaaxalul woon suñu maam yi doon faral di bëri njaboot soxna yi jàpp ni si nañu naa dundee la. bu njëkk hôpital amul woon suñu maam yi dañoo amoon wanag ci la ñuy accoucher te macha allah dara du leen dal ñun ñii di dem hôpital fi mu nekk nii ñun ñoo ñun ñoo gën a mag ñu njëkk ñi. li ñu gëmloo tamit. suñu yaay yi gëmuñu ko woon da gis suñu yaay yi am neuf doom te ñooñu gën a wér ins bi yenn saa yi dugg si oto maire wax la maire maire bi taxaw sax moo gën xale bi taxaw ndax maire bi moo gën a wér téeméeri junni yoon xale bi na xale bi wérul benn doom doo nga lay am maire bi am doom ba mënatul te moo ñooñu gën a wér. loolu jaaxal nañu bëri de jaaxal nañu bëri vraiment parce que ñoom moom macha allah dañoo doon gis ku si am ay huit bant ay douze bant mais ñun moom ku si am ñaar ñett rek. nga gaare boo amee benn sax mooy da ngay bëgg a dee euh, peut-être xaw ma ñoom ñoo ñu gënoon jaxlaf xaw ma peut-être ci suñu consommation produit yi ñuy lekk wala li ñuy naan la xaw ma nu mu demee mais loolu daa am na wala médicament yi ñu jël parce que ñoom boo seetloo daaw ñu dem sa hôpital ñoom. waral ñuy sàkku si ñuy yëngu si wàllum jurum doom sa kër docteur yi ñu bàyyi xel ni méttitu wasin foo ko natt weesu na ko. ñaaw na daal.